mbokk incha allah ñi ngi war a jël tey ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suuratu taaha wa laqad awhayna ila muusa ci page 317 bi wa laqad awhayna ila muusa alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk ñi ngi nekk tey ñaar fukki fan ak ñett ci weeru zulhijja di weer yu mujj ci at bi ñu war a góorgóorlu jéem a rafetal sunu mujj ko at lépp lu mën a doon mujj ga da cay am solo ca mboole mi temps dafa ñëw ngir seede ñu incha allah kon ñu dal aaya juróom-ñaar fukki bi ak juróom-ñaar
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu boroom subhanahu wa taala mu ni walaqad awhayna ila muusa ñun yàlla day xamaloon nañ jëmi ca muusa an asri bi ibaadi na ko na nga dox ca guddi yóbbu samay jaam fadrib lahum tariqan fi lbahr nga dóor ñeel leen aw yoon ci géej gi ay nga xàll ñeel leen aw yoon ci géej gi yabasan yoon boo xam ne bu wow lay doon laa taxaafu dara kam wala taxsha bul ragal ak dab gu la firawna di dab waaye it bul ragal lab goy lab ci géej gi fa atbaahum firawnu bi junuudi noonu la leen firawna toppe ca armeem ya fa gachiyahum min al yammi ma gachiyahum noonu la leen muure ay labal leen ca duusi géej ga la nga xam ne moo leen fa labal da leen fa muuru wa adalla firawnu qawmahu wa ma hada noonu la réerére firawna xeetam ba te tegu leen woon ci yoonu njub ya bani israil e yéen njabootu israil qad anjaynaakum min aduwikum ñun day musul nañu leen ci seen noon wa waadnaakum janiba tuuril ayman ci diggante ak yéen ca wàlluk montagne ba fa féete ndeyjoor wa nazzalna alaykum almanna wa salwa wàcce nañ ci yéen li nga xam ne nii mooy man di am naan goo xam ne dafay mel ne lem wa salwa ak ay picc yoo xam ni dañ koy wax kaay di loo xam ne soriwul suñu pigeon yi torop kulu min tayibaati ma razaqnaakum na ngeen lekk ci yu tey yi nga xam ne wërsëgal nañu leen ko wala tatxaw fiihi ca bu leen bew ci biir xéewal yooyu fa yaxilla alaykum gadabi kon day dana dal ci yéen sama mer wa man yaxlil alayhi gadabi faqad hawa te képp koo xam ne wàcc na ci moom sama mer kooku day nekk na koo xam ne ku sanku la wa inni la xafaar man nag yàlla aji kuy bale la li man taaba wa amana ñeel koo xam ne daa tuub waaye gëm wa amila salihan summa htada daa di jëf jëf yu yiw gannaa ba mu jub ca loolee mi ngi noonu mbokk gis nañu sunu bind yi passé Muusa alayhi salaam dikkal ne Firawn sama borom nee na nga gëm ko topp ko boo ko defulit nga bàyyi ma ma delloo bani Israil seen dëkku maam ca Palestine Firawna bañ loolu lépp indi ay njabaram ngir ñu jàkkaarloog Muusa yàlla dogal njabar yu tuub firawna rey leen wëlbatiku continuer di rey bani israil ba ci benn guddi ci guddi yi te guddi googu sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamaloon ñu ne mooy guddik ashura ca tamxarit nga xam ni sorituñu dara mu daal di wax yu Muusa ne ko bu guddi jotee waxal samay jaam ngeen dem ca fële nga xam ne mooy mer rouge ci boori canal du Suez nga jaarale leen fa ci yoon bu wow koŋ bul tiit Firawna du la mën a dab bul tiit it du ngeen lab soo demee ci yeneen ayat shura ak yeneen ak yeneen suñ borom ma ngi koy détaillé mooy def na Moussa jëlal sa yat dóor ci géej bi ko Moussa dóoree géej gi xar fukki yoon ak ñaar yoon bu nekk yëkkati ko comme montagne ba kaw géej gi wow léegi nag bani Israil jaar ci ñoom di jàll bañ demee bay waaj a jeexal la Firawna yegg seeg armeem suñ borom ne Firawna topp leen afe armeem di armée boo xam ne jig woon na dayo ci bëriwaay yàlla mi dogal lu ko soob dogal firawna ak armeem dugg ci géej gi toppi Muusa ak la nga xam ne mooy ñëkk a gëm àndoon ak moom sunu borom yàlla bi mu demee ba waa bani Israil génn mu ne Muusa dóoraatal géej gi Muusa dóoraat géej gi vague yi yépp daal di wàccaat ci firawna ak armeem ñoom ñépp yàlla subhanahu wa taala bokk leen labal léegi nag firawna bi Muusa ñëwee moom lu mu daan wax waa xeetam wa ma ahdikum illa sabila rashad teguma leen lu dul ci yoonu njub man may yàlla bi ngeen war a jaamu ila axiri sunu borom mu ne déedéet firawna ngi nii réeral na xeetam te tegu leen ci yoonu njub te loolu it mbokk muy benn message bu jëm ci bépp dirigeant e waaye képp ko yàlla nattoo nga jiite ay nit xamal ni mbir mi du nañu lekk ba suur naan ba man di am sécurité kaza wa kaza waaye fexeel teg leen ci yoonu njub loolu mooy la gën a am solo li ñuy sàkku ci njiit mooy teg leen ca la neex yàlla jalla wa ala te ngalawaay yow président yow kum mën a doon ci ministre yeeg gouverneur ak kum mën a doon amul luy jiite lu dul yowmal qiyaama sunu borom yàlla subhanahu wa taala dana la taxawal ci kanamam laaj la na la yow day defoon naa la kilifa ci lenn samay jaam naka nga leen jiite woon kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ku nekk ci yéen sàmm la ku nekk dañ koy laaj lam doon sàmm léegi mbiri firawna féete boor yàlla labal na ko moom ak i notable am yëpp léegi nag bani israil suna borom mu ne ee yéen waa bani israil musul naa leen ci seen noon firawna génne leen ci désertu Sinaay bi léegi nag joxanteeg yéen rendez-vous ca tuuru Sina ngir ma war faa daje ak yéen pour wàcc ci yéen téere bu mag boobu di tawraat yéen a ngi ci désert bi amu leen lu ngeen lekk bés bu nekk yàlla wàccel leen benn genre lay boo xam ne ndox mu may indi dafa dëgër comme lem di jus boo xam ne jus bu neex la sunu borom yàlla suba gu nekk mu indi benn ngelaw bu xëpp ci ñoom ay picc ba ku nekk ci ñoom mën a dajale loo xam ne da nga ci mën a añ reer ci gis ngeen doonte ne boo delloo ca baqara xéewul gu réy googu bani israil dem nañ ba xeeb ko yaa Moussa lan nasbira ala taamin wahid Moussa mënuñoo dëkk ci picc ak lem picc ak lem mënuñu ci dëkk yaa ngi dégg waxal sa borom nag mu génneel ñoom sobleeg poobar ak tamaate ak comme ni ngeen ko xamante ca baqara ba ma tumbitu l arde min baqliha wa xisaasiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha gis ngeen sunu borom mu ne yéene ngeen nii bàyyu leen yattu leen bés bi ngeen xëyee ma jox leen ngeen lekk ba suur ci yàpp picc te mooy yàpp bi gën a neex ci yàpp yi mi ngi doon yàpp luy naaw boo demee tubaab yi médecins yi dañ koy wax viande blanche nga xam ne moo gën ci li ñuy lekk rawatina guddi léegi jus yaa ngi nii naan leen ba man ay waay ca bañ a bew ci wërsëg yi ma leen wërsëgal mbokk doomu aadama na xam ne su ma nee def lu mu mën a def daa fekk dafa lekk mu naan waaye gis ngeen ñooñu def grève de la faim même pas une semaine nga dégg ñu ne évacué nañ leen hôpital te mooy doomu aadama boo toogoon une semaine lekkoo naanoo yow say mbir daanaka jeex na kon nag bu la yàlla may énergie nga lekk ba suur naan ba mandi nga la waay bul beew xam nga luy beewa mooy bàyyi santaane yàlla yi sax ci ay tereem mi ngi noonu bàyyi santaane yàlla sax ci ay tereem nga la waay bu leen beew ci xéewal yi ma leen defal ndax loolu bu ngeen ko defee sama mer dana wàcc ci yéen te képp koo xam ne sama mer wàcc na ci moom ku mel noonu day na xam ne sànku na alku na te mbokk doomu aadama bu nekk war naa moytu merum yàlla léegi léegi bi ñuy julli timis ndax boolewuñu suñuy ñaan gayril maghdubi alayhim am déet ci fatiha lu mu néew néew fukki yoon ak juróom-ñaar da nga ñaan yàlla yàlla boo ma boole ca jaam yi nga mere mbokk xam nga yéen jaam la yàlla mere mooy ñi xam ay ndigalam defuñu ko ak ñi xam ay tereem bàyyiwuñu ko ñooñu ñooy almaghdubi alayhim amma wala doolin mooy ñi nga xam ne xamuñu lu baax xamuñu lu bon ca ñaari groupe yooyu benn baaxu ci moo tax au minimum bés bu nekk da nga ñaan yàlla lu jege ñaar fukki yoon yàlla yàlla na nga musal ma bokk ci ñaar ñooñu ah ma bañ a bokk ci ñaar ñooñu yàlla na nga ma musal ci may bokk ci ñaar ñooñu te mooy wa almaghdubi alayhim ak ñi nga xam ne mooy wala dalin borom bi nag subhanahu wa taala ni man day aji jéggale laa ñeel képp koo xam ne dafa tuub te mbokkit loolu di xéewalu gi yàlla gum defal ay jaamam kaw suuf amul benn bakkaar bu doomu aadama nekkee baññe kii c'est fini sawara la jëm heure boo xamee ni nii yaa ngi ci li neexul yàlla ak loolu lu mën a doon heure boo tuubee yàlla baal la li man taaba doonte ne tuub boobu mbokk moom mooy nga jëkk reconnaître ne li nga nekkoon baaxul bu démb doon na tey doo ko def nga bàyyi ko ci saasi loolee da ngay gis na moom la ñuy tudde ak tuub sunu borom nee na képp ku ko def danaa la baal waaye itamit ba nga tuubee nga gëm li yàlla subhanahu wa taala santaane ci ne lii dañ ko war a def lii dañ ko war a bàyyi daa di wëlbatiku nag def kéemtalaal kattan lu baax la la yàlla santoon sax ci loolu ba dajeeg sa borom ku mel nii day même bu doon loolu un jour la durée fekk soixante-dix ans mi ngi mooy yàlla mi ngi nekk ci lu neexul yàlla waaye mu dund un jour ci charte yi mooy tuub na mboole mi bakkaaram gëm na aayey boroomam jëfe na ci kemtalal kattanam deeyaale loolu ku mel noonu suñu borom mu ne dinaa ko baal li man taaba wa amana mi ngi noonu wa amila salihan summa htada lii kon mooy loo xam ne yàlla nga koy wax bani israil di ko netti li ñun ngir ñu xool ñu nit ana fan lañ ca war a jaar yàlla nañu yàlla boole ca jaam yooyu tuub di dellu ci moom
وما أعجلك عن قومك يا موسى ربك وأضله السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
sunu borom mu ni Muusa alayhi salaam wa ma ajalaka an qawmika ya Muusa moo lan moo la tax nga jiitu sa xeet bi lan moo lay gaawee ci sa xeet bi ba nga jiitu leen yow Muusa qaala hum ulaa'i ala asari mu ne yàlla mooy ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci sama gannaaw ci samay ndëggu sama yoon bi ma jaar wa ajiltu ilayka rabbi li tarda man nag gaawe naa ñëw ci yow sama borom ngir nga kontaan nga gërëm ci man qaala fa inna qad fatanna qawmak mu ne ko ay Muusa min di fitnaal nañ sa xeet bi sa gannaaw min baadika sa gannaaw wa adallahum samiri te sànk na leen kii di samiri fa rajaa Muusa ila qawmihi ghadbaana asifa noonu la Moussa delloo ca xeetam ba ànd ak doon aji mer lool aji tiisu lool qaala yaa qawmi alam yaidukum rabbukum waadan xasana mu ne ay yéen saw xeet ndax sama seen borom digu leen dig boo xam ne bu rafet la afa taala alaykum al ahd ndax dafa gudd ci yéen dig bi yàlla digganteeg yéen am aradtum an yaxilla alaykum gadabun min rabbikum wala boog da ngeen a bëgg rek ci mu wàcc ci yéen mer mu bawoo ci seen boroom fa axlaftum mawidi ba ngeen wuute ak sama dig bi qaalu ma axlafna mawidaka bi milkina bi malkina ñu ne ko déedéet ñun day wuutewuñu sa dig bi ci suñu cooba rek bopp walakinna xamilna awzaaran min zinati alqawm waaye ñun day dañoo yen woon ay yen te mooy takkaay ca taaru waa waa xibti ya nekk biir firawna ca mbokki firawna ya fa xasafnaaha bi ñëwee lañ ko sànni fa kazalika alqa samiri naka noonu it la samiri sànni ca takkaay yooyu ñu dajale woon ñu ngi noonu mbokk sunu boroom wax na yonent yàlla Muusa danaa dajeeg sa xeet bi indi leen ca montagne Tuur danaa la jox tawraat jiitu loolu na nga woor fanweeri fan Moussa dem beru di woor fanweeri fan gannaaw ba sunu borom mottali ci fukki fan léegi nag Moussa alayhi salaatu wasalaam diir boobu mu toog génn ko ci xeet bi waxoon na magam ja Haaruna ne ko toogal sama xeet nga yéwénal bul topp yoonu yàqkat yi ah Moussa dem na bi mu demee daa di dajeeg boromam subhanahu wa taala borom bi na ko waaw Moussa ànd lu teewoon nga ànd ak xeet bi yëpp ñëw mu ne ah ay sama borom xeet bi day ñi ngi noonu di ñëw waaye xam nga doxinu mbooloo ah gaawul looloo tax man ma profito jiitu ñëw ci yow ngir rek nga gërëm ma ca loolu itamit mbokku jullit bi war na koy bàyyi xel woote bi yàlla nga la way boo mënee jiitu ca tey jii ñun ñépp ñu ñëw ci jàkka ji fa lillahi alhamdu am nañ tuyaaba waaye ñu jëkk a ñëw toog premier sàppe ñooñee ku ne xam ne ñoo ëpp tuyaaba ñu ca des su ko defee loolu ñu koy bàyyi xel bu baax te itamit nga la waay su ngeen ñëwee day leen toog premier sàppe bu leen nekk di xool na laa fee de ma sàmbaa fay toog fee ma dem baa fay toog di mbir yoo xam ne xatta jàkk sunna yi mucc ñu ci te yonent bi alayhi salaam da koo tere kenn ci yéen bu mu ut place bu muy toog ci jàkka ji mel ni ni gileem yi def seen gétte yi del toog fii tey ëllëg fee ëllëg fee ëllëg fee waaye yow heure boo ñëwee jàkka toogal premier sàppe yonent bi alei salaam nee na bu ngeen xamoon li nekk ci loolu da ngeen ko ruturi sax ah ngiree teqale doomu aadama yi bu jumaa jotee fii nodduñu ne imam ñëw na su boobaa da ngay gis ne yow am nga délai bu la neexee toog bañ noddal imam nga doog a ñëw amoo bakkaar waaye xamal ne nag soo demoon ca sawal nga xam ne yonent bi alei salaam ne la ñuy jëkk a ñëw dañuy mel ni ay giléem la ñu rey sarxe ko ña ci tegu comme nag ña ci tegu comme xar ala kulli xaal mbokk jaamu yàlla ngi noonu fexeel bu la kenn ëpp ci ay sarax bu la kenn ëpp ci ay koor bu la kenn ëpp lu muy jàngal quran ajiltu ilayka rabbi li tarda gaawe naa jëm ci yow ngir nga kontaan sunu borom yàlla nag ne ko Moussa sa xet day fitnaal naa leen sa gannaaw am na saay-saay bu ñuy wax saamiri kooku day réeral na leen daa di koy nag jox tawraat bi Muusa daa di a dellu siwaat mi ngi mer lool mi ngi découragé lool ak fi mu jaar ak bani Israil bi nga xamee ne nii ñëw na sunu borom mi ngi nettali beneen saar dafa mer ba sànni tawraat bi ko yàlla joxoon alqal alwaax dafa sànni tawraat bi mu niwee ba gis mbir mi loolu it dañ naan mbokk gis bokkul ak dégg doonte na sunu borom wax na Moussa sa xeet ba sànku nañu Moussa ngi ñëw ak meram waaye kame mi ngi téye àlluwa yi mais bi mu ñëwee ba gis seen bi jàkkaarloo xeetam bi wër nag bi di ko jaamu gannaaw yàlla mënatul téye boppam dafa sànni àlluwa yi alqal alwa ah Moussa ñëw na daa di wax ak xeet bi daa di ne ay yéen yéen sama xeet ndax yàlla diggu leen woon dig boo xam ne dig bu rafet la waxoon ne dana leen yónni ku leen musal ci firawna yàlla yónni na ma labal ne firawna ci seen kanam yàlla wàcc na ci yéen mën na wa salwa yàlla dig na leen ne da leen di jox ab téere ndax yéen da ngeen a jàpp ne temps bu gàtt bi ma teqali ko ak yéen à peine quarante jours ngeen jàpp ne gudd na ba tax ngeen dellu gannaaw am da ngeen bëgg rek yàlla wàcc ci yéen la nga xam ne mooy meram ba tax ngeen wuuteeg samay dikk loolu bi mu amee ñay wax ca ñoom na ko ah Moussa ñun nag lii du suñu xalaatu bopp waaye Saamiri mii ñun ba ñuy jógee Misra ca li mufassiroon yi wax ñu ne bi ñu xamee ne dañuy daw waa bani Israil dañ dem ci seen kilifa xeet yi nga xam ne ñooy famille Firawna ab leen ay takkaay ndax juif ni mu bëggee alal biñ ñëwee Haaruna gis ko ne leen lii ngeen jël day nekkul lu dagan ci yéen daa di koy ne lii da ngeen koy jël ngeen dajale ko sànni ko daganul ngeen di ko jël ndax du lu ngeen jihaat wala leneen bañ jëlee or boobu dajale ko ca la Saamiri ñëwee sànni ca lam ca sànni ci ba loolee wëlbati ko waat di dund te détail boobu la ñu nar a jàng ni ci kanam insha allah
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا
رأيتهم ضلوا ألا
عصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي
gis nañu sunu borom mu ne fa axraja lahum ijla noonu la saamir yi génne ñeel leen aw sëll mooy nag bu ndaw ah jasadan lahu xuwaar sëll wu am jëmm am yuuxu comme na nag di yuuxoo fa qaalu haada ilaahukum wa ilaahu muusa fa nasi ñu ne lii day mooy seen yàlla mooy yàlla Muusa Muusa nag fàtte na ko di ko wuri ci àll ba afalaa yarawna allaa yarji'u ilayhim qawla amoon ndax ñoom gisuñu ni nag woowu du delloo ci ñoom benn kàddu wala yamliku lahum darran wala nafa te moomul ñeen leen benn lor wala benn njëriñ wala qad qaala lahum haaruna min qabl te haaruna it waxoon na leen lu jiitu lépp yaa qawmi innama futintum bih ay yéen sawxeet dañ leen fitnaal ci nag bi wa inna rabbakum arrahman waaye seen borom dëgg mooy yàlla mi borom yërmande ji fattabi'uni wa atiu amri na ngeen ñëw ngeen topp ma te ngeen wëlbatu ko topp la nga xam ne mooy samay ndigal qaalu lan nabraha alayhi aakifin ñu ne ñun day duñ dañ mukk di wër nag bi xatta yarjia ilayna muusa ba baa muy dellu si ci ñun Muusa qaala ya Haaruun Muusa ne ay Haaruun maa manaaka iz raaytuhum dallu lan moo la teree bi nga leen gisee ñu sànku allaa tattabi'anii ci nga bañ maa topp si afa asayta amri ndax da ngaa mooy samay kaddu samay ndigal qaala yabna umma mu ne ko ay sama doomi ndey laa taaxuz bi lixiyati wala bi rasi bul jàpp sama bopp bul jàpp sama sikkim bul jàpp sama sikkin bul jàpp sama bopp inni xashiitu an taqula farraqta bayna bani israil dama ragal su ma la topp si woon nga ne ma teqalee nga diggante bani israil walam tarkubu qawli te nekkoo di fuglu ay di sàmm la nga xam ne mooy sama wax mi ngi noonu mbokk samir yi jël na or bi bani israil yoroon fexe ba defar ci benn sëll daa di sëll ba nekk di yuuxu nam def ba sànni ko ca ci kanam lañ koy jàng ca nam ko nam ko nar a waxee sëll bi mi ngi nekk di yuuxu waa bani Israil yépp su juutal ko commencé di ko wër commencé di tàccu commencé di fecc kontaan ci loolu léegi nag ñu ne kii mooy yàlla yàlla dëgg bi ñu war a jaam waaye Moussa moom daa fàtte loolu ma nga dem di ko wër ci àll ba gis ngeen sunu borom yàlla mu ne waaw xanaa gisuñu ni sëll boobu bu ñu waxee ak moom du leen tontu te amalu leen njëriñ amalu leen lor te loolu itamit mbokk da ngay gis ni lu bari ci doomu aadama yi jaamu xàmb yi di jaamu guy yeeg daqaar yi loolu lañ leen di laaj mooy lii ngeen di topp amulu leen njëriñ amulu leen lor ci amul benn ndigal bu muy wax ak yéen amul tere bu mu leen di tere léegi nag lan mooy position Haarun sunu borom mu ne Haarun na day neewoon ne leen ay yéen saw xeet nag wii saamir yi defar day sunu borom yàlla moo leen ci fitnaal ca moo ko gis nañu ko mel ne masiixi dajjaal doon fitne bi gën a rëy bi ñu rañoo ci kaw suuf yàlla dana ko may mu rey benn nit sax dekkal ko yàlla dana ko may mu ne asamaan tawal mu taw suuf meññal mu meññ ila axiri kon it lii day fitna la xam leen ne seen borom dëgg-dëgg mooy yàlla arrahman mi nga xam ne mooy bind asamaan yeeg suuf kaay leen ngeen topp si ma te def la nga xam ne mooy sama topp sama mbir mi ma nekk te mooy diine ji nga xam ne man moom la koy yàlla yónni ak yonent yàlla Muusa ñu ne koy Haaruna jógal fii ñun duñu dañ di bóof ci nag bi di ko wër di ko jaamu xanaa lu dul Muusa moo ñëw ba xam moom ana lan lay wax léegi nag yonent yàlla Moussa ñëw na ñëw naag meram ñëw naag tiisam bi mu ñëwee kan mooy responsable numéro un bi mu fi bàyyi woon mooy Haaruna mu daal di jóg dal ci Haaruna ne ko Haaruna bi ngay gisee sama xeet bi réer am na lu teewoon nga dab si ma wax si ma wax si ma loolu léegi da ngaa moy ndigal yi ma la joxoon te mbokku Moussa alayhi salaam gis nañ ne sunu maam yi boo déggee ko tudd njàmbe yaa ngi dégg Moussa njàmbe day dañ ne Moussa dafa tàngoon moo tax ñoom bu ñu ko tuddee seen doom nañ ko tuddee njàmme ngir mu bañ a tàng comme yonent yàlla Moussa ndax yonent yépp comme ni ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee yàlla dafa am ñaari waliyu am na koo xam ne dafa fiiral diine yàlla ji tàng ci lool yonent yàlla Nuux noonu la meloon Moussa noonu la meloon am na nag koo xam ne dafa am yërmande donte ne ne xam nañu nit ñi bu ñu réeree yëpp day bëgg yàlla baal leen yërëm leen Ibrahima ak Isa noonu lañu meloon waaye Moussa dafa tàng bi mu ñëwee riir def dem ci Haaruna ci Haaruna ko mag de dafa riir dem ci Haaruna ne nekk ci kaw bopp bi ne nekk ci sikkim bi looloo tax Haaruna ko ay sama doomi ndey donte ñoo bokk ndey ak baay waaye mi ngi bëgg affection ci wàllu ndey ay sama doomi ndey bàyyil sama bopp bi bul jàpp sama bopp bul jàpp sama sikkim loolu mbokk bu la laajee lan mooy tegtalu sikkim ci alquran mooy aaya bii ngeen di jàng fi Haaruna di waxee bul jàpp sama sikkim mbokk ñii mooy yonenti yàlla yi suñu borom ne ulaayka lazina hada allah fa hudahum yaxtaji ñii la yàlla def seen royukaay roy leen leen kon Haaruna mi ngi sikkim loolu mbokk mu lay wan ak doomu aadama bi loo sàggan sàggan yaakaar naa ne jullit bi gën a doy waar ci jullit yi bu ñu ko laajoon ndax yonent bi alayhi salaam am na sikkim moom amul sikkim dana amul na sikkim am déet loolu amul ñaari jullit bi ci sikk sàkk amoon na sikkim waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na sikkim ay sahaaba amoon nañu sikkim ndax bëggoon mel na ñoom xanaa xamoo ne xëy wat sab sikkim du woon suñu aaday bàyyi yi sax tubaab bi moo ñu ko fi indil tubaab dafa gis ni bàyyi sikkim incorrect la dañ naan la barbe pousse la nuit et disparaît le petit matin pour ñoom da ngay gis ne doomu aadama bi loolu mooy mooy sikkim bi daal guddi la war a génn waaye fajar teel lañ ko war a xuuf yaa ngi dégg loolu mbokk ñoom fédère bi biñ ñëwee fii dañu indi contraire sunna contraire sunu aaday maam daa di commencé bàyyi seen moustache mun a juq-juqaaral ñu daa di wat la nga xam ne mooy sini sikkim waaye nga loo yoon dawal julit xamal ne tegtalu sikkim mi ngi ni ci alquran ngeen bàyyi ci xel bu baax yar seen sikkim maa ngi ciy profito di leen jaale kenn ku doon toog ak yéen fii ci jataay bi ñu koy wax suñ mbokk ba daam ñaan mi nga xam ne moo yoroon salaatu dix-sept gi nekkoon jàmbaari sunna fépp organisation l'islam ñi doon nga xam ne ñooy yor garde yeeg yëpp moo leen jiite woon nekk ndaw boo xam ne boo dajee moom li lay gën a jëkk a frappé mooy sikki moom bu rëy ba tey jii la faatu ñu delloo ko boromam yal na yàlla jéggal ko ci yërëm ko mbokk ni ngi noonu dara la ko yàqul woon ci àdduna bi sikki moom boobu da koo delli woon personnalité fu ne la daan dugg ambassade yeeg partout su ko defee ngal la waay yow sin julit bul complexe ge yoral sa sikkim yal na yàlla yërëm suñ mbokk ba El Hadji Fadiour Gueye ak sikkimam bu rafet ba li mu daan wax intellectuel yi moo dini ne sikkim bu ci dara nekkul woon lu dul tubaab bi da koo bañ rek jar na julit ñi yar ko ndax sunu borom yàlla dafa ñoo sant ñu safaanoog tubaab bi ci tubaab dafa bañ sikkim noonu ko tubaab bañ rek war naa tax yow nga bëgg ko loolee nga la waay ñëw góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon ñu ngeen bañ ji fàtte sunu mbokk boobu daam di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala wallahi ndaw ñi taxawu daaw bi xawma kenn ku ma ko ci méngaleel yal na yàlla nangul ko jëfam te defal ko jannatul firdaws mi wàcc waayam léegi yonent yàlla Haaruna kon mu ne Moussa alayhi salaam man damaa ragal ne su ma bàyyi woon bani Israaïl da dama lay topp ah léegi kon mbooloo mi tasaaroo du ñàkk ñu ma topp ñuy topp ma ca yow da nga ne ma woon naa toog xaar moo tax ma ne quelque soit lu mën a doon mën naa toog xaar ba nga ñëw rek loolu it mbokk di raisonnement bu logique boo xam ne Haaruna wax na ko te it loolu muy won ne mbokk lépp luy teqalee mbooloo l'islam bëgg ko yàlla dafa bëgg ñu jaamu ko moom rek waaye dafa bëgg ñu ànd lépp luy teqale lislaam bëgg ko ñu dégg ci it ne li wala fii di wax naan bala ngaa toj gémmiñu sàmm na nga xaar ba xam la mu walis mi ngi noonu xëy na loolu su mbokk ñoom Cheikh Ndiaye ñoroo njàmbur da koy xam ca mooy jamais mbokk yow directeur de service yow père de famille bi yow ku mu mën a doon sa njaboot ku ci def erreur bu mu mën a doon na nga ko laaj lu tax mu def ko bala ngaa dal ci kawam am déet ca fut boobu Moussa def ci Haruna dana koy rectifier léegi ci Samiri comme niñ ko nar a jàngee mi ngi noonu
فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne Moussa ne qaala fa maa xatbuka yaa Samiri ah waaw yow lan mooy sa discours ay lan mooy say lay yow Samiri qaala basartu bi ma lam yubsiru bi mu ne man dama gis ci loo xam ne ñi nga àndal gisuñu ko fa xabadtu qabdatan min asri rasul ma daa di ngëpp ab ngëpp ci jeexitu la yonente ba ay jibril mooy mu tibb tànku fasam ba fa nabastuha ma sànni ko ca gi- ca nag wa wa kadalika sawalat li nafsi lii day la ma taaralal sama bakkan qaala fadhab mu ne ko demal fa inna laka fi lxayaati dana la ñeel ci sa dund an taqula la misaas ci ngay nara di sax di wax ni aw ak laalante amul ay bu ma kenn laal wa inna laka mawidan lan tuxlafa dana la ñeel ab dig boo xam ne kenn du la ko wóoteel léegi nag wanzur ila ilahika allati zalta alayhi akifa xoolal jëm ci sa yàlla ji nga xam ne sax nga nekk di ko jaamu di ko buuf ci moom lanuxarriqannahu ñun day daañ ko lakk summa la nansifannahu fi lyemmi nasfa gannaaw ba daañ ko tasaare ci biir duusi géej gi ak tasaare innama ilahukum allah seen yàlla bi ngeen war a jaamu mooy yàlla lazi la ilaha illa hu moom mi nga xam ne kenn yooyuwul ñu ko jaamu ku dul moom wasia kulla cheyin ilma peeg ne bépp mbir ca xam-xamam bi mi ngi noonu mbokk Moussa wëlbatiku na jàkkaarloog Samiri ne ko waa Samiri lan mooy sa mbir ba nga def lii nga def Samiri ne ko ah man daal Moussa man damaa gis tànku Jibril ci lii mufassiroon yi wax ca mooy Jibril bi Moussa di dóor yat bi bay dem wàccoon na comme ni nga xamee ni noonu la wàcce woon keroog Badr ila axiri Samiri gis ko ca loolu lu ci bari ñeneen di gis ci malaaka yi mooy yéeféer yi nar a alko léegi nee na gis na ne fasu Jibril bi fu mu laal ñax gi boo bu woowee boo ko laalee rek mu daal di dund ci saasi mu daal di ci tibb daal di denc bi mu demee ba defar nag bi mu daal di jël lool yi sànni ko ca yàlla mi nattu ci ay fitnaam nu mu ko neexee daal di dundal nag bi nag bi commencé di yuuxu mu ne daal man Moussa lii laa def ci sama bakkan lii la ma taaralal léegi bi mu loolu amee Moussa alayhi salaam ne ko waaw baax na suma borom yàlla day def na loo xam ne lii mooy demal dana la ñeel ci kaw suuf doo mën a laal kenn ca loolu mooy la nga xamee ne la ko yàlla subhanahu wa taala jëkka nattoo mi ngi bëggoon ngóor mi ngi bëggoon njiite waaye yàlla def ci moom loo xam ne bu dajeeg doomu aadama day mel ne décharge électrique électrique ba xam ne Samiri kum ma san seen bu ko jege naa la bul ma laal bul ma laal boo ko laalee day mel ni courant bu kenn xamul lañ déchargé ci kawam loolu muy benn mu ne ko nag loolu moo lay ñëw ci àdduna amma bis boo dee da nga dajeeg sa boroom ci dig boo xam ne kenn du ko wuute ak yow loolu mbokk moo nekk la nga xam ne sunu boroom yàlla subhanahu wa taala wax na ko ak ak ak saay-saay bu mag boobee Moussa nag ne ko xoolal sa yàlla ji nga xam ne yow yaa ko créé de toute pièce ba pare wëlbati ko di ko jaamu te itamit mbokk doomu aadama ci gàtt xelam da nga naan ah waaw mi ñi daal ñoo def waaye mbokk dof yaa ngi fi ba léegi de doomu aadama bi nga xam ne nii mi nga xool ko dee woon depuis kenn xamul mu dem ca bàmmeelam sukk di ko ñaan ay soxlaam mook ñee defar seenu nag di jaamu benn lañu rek loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax ba nga xamee ni jullit bi nga xam ne dafa xam dëgg dëgg dëgg moom kan lay yaakaar muy yàlla kese looloo tax mu ne ko xoolal sa yàlla bi nga defar daañ ko lakk ba mu def dóom ñu tasaare ko ci douche géej gi ba nga xam ne li du yàlla te it yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba mu ubbee makka loolu la woon waa makka daa dina leen jaa al xaq wa zahaqa al batil fekk trois cent soixante yàlla ñi ngi woon ci kaaba gi yonente bi alayhi salaam mab bi yépp mu jóoru amoon na ñetti yàlla yu mag yu tasaaroo woon laat uzza manaate bi nekkoon yemen bi nekkoon fële nga xam ne mooy taif bi nekkoon boori madina yooyu yépp mu yónnee ay ndaw ñoom xaalid miqdad ali ku nekk mu dem mab yooyu yépp ci keroog bu mu ubbee makka loole gën a dëgëral waa makka xam le ne lii ngeen doon jaamu seen maam di ko jaamu xam leen ne du dara su ko defee mbokk julit yàlla nag subhanahu wa taala daal di ñuy tegtal ne seen yàlla kenn kese la ay seen yaakaar kenn kese la ki ngeen war a ragal kenn kese la ngal la way julit bul yaakaar muhammad bul yaakaar ibrahim bul yaakaar abubakar wala usman waxuma koo xam ne dafa nekk ci beneen bàmmeel bal ñooñu dañu war a julli ci ñoom di leen ñaanal yàlla amma kenn ki ñu war a ñaan kenn ki ñu war a yaakaar kenn rek la innama ilahukum mooy allah allazi la ilaha illa hu yàlla mi nga xam ne kenn ah yeewul ñu ko jaamu ko dul moom lu tax mooy wasia kulla cheyin ilma gars yi yàlla rek mooy ki nga xam ne moo xam lépp ni nga noonu mooy xam lépp wallahi benn jigéen mi muy téléphone démb ci maatam mu ne dafa am ci benn waay bi muy ñëw di jëndi nee na di ko jox xaalis bi mu wadd mu ne yaa cheikh diw mu ne ko ah waaw tey nga woo yàlla nee na am na benn sëriñ bu nekkoon foofu ne ko ah waaw kooku it bu ko woo it woo na ku mu war a woo yaa ngi dégg mu ne nee na soxna si mu ne ko waaw cheikh boobu mën nañu fi jël fukki dërëm bi jox ko di dégg mu ne ko ah waaw ala kulli xaal daal woo na ko mën a woo war na ko ñu xettali ko léegi nag nan waa imaam man li ma ci jaaxal kooku daa jàng alquran nangam nangam waaye mbokk lan nga xam ci yar boo bon boo donne say maam mu donne ci ay maamam mbokk abadan julit bi woo kudul yàlla bokk ne shirk bu mag ngay dem ba waa ji daal dina yow muhammad bokk ne shirk bu mag ngay fakkastalu ne yow muhammad lu tax mbokk muhammad alayhi salatu wasalaam ma nga ci biir xabru ba déggu la gisu la mënu laa xettali amma heure boo demee ba jàq ne yaa sëñ diw yaa cheikh diw nangu nga ne cheikh diw mi ngi lay dégg fu mu mën a nekk nangu nga ne cheikh diw am na kàttanu ñëw xettali la ak foo mën a nekk loolee mbokk kon yemene goog ak sa borom subhanahu wa taala loolu nag kenn dong moo ko yeyow mooy yàlla mi nga xam ne moo peeg lépp ci xam-xamam waaye peeg lépp ci kattanam wasia kulla cheyin ilma kooku may sunu borom bi ñu ñaan yal nañu yàlla boole ci ñu ñi nga xam ne duñ ko bokkaale ba baa ñuy dajeeg moom boole ñu ci ñi koy wéetal ba baa ñuy dajeeg moom donte li yéen mbokk jataay bi ki nga xam ne moom laa doon wax ak yéen muy sunu mbokk daam ñaan yàlla dogal ne mi ngi bàyyi jaboot gu sew te avant muy faatu tëdd na juróom ñaari weer ci hôpital ba liggéeyul su ko defee ñu daal di leen di fàttali rek yeneen ci bi alayhi salaam dana wax ana wa kaafilul yatim ka haatayni yowm alqiyam maa ki taxawu jiriñ nii la ñuy def yowm alqiyam ci biir ajjana insha allah bala ñu fay jógee lu ci waay am ñu dajale ko jo fexe ba jox ko xaritam goroom imam Aboubacar Sall incha allah ñu ko joxe Bilal Thiam daañu fexe ba mu jot ca famille ba yal na yàlla yombal lépp luñ ciy def te nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ala kulli xaal dafa am jumaa yoo xam ne day am ku jëkk a ñëw di waaraate avant imam di ñëw loole ndax man bu ma jàppee ne loolu biddaa la am naa droit toog ba koo ko pare may doog a dem juma ala kulli xaal yow yàlla la sant nga dem juma demal juma ja ak lu fay mën a xew doonte ni ne mbokk la nga xam ne moo nekkoon sunna mooy juma lañ bàyyi nit ñi ñëw nekk ci seeni naafila ka yor kàddu di xutba mooy imam amma ñu am benn waay boo xam ne mooy ñëw trente minutes avant imam di def bayaan def bayaan def bayaan ba imam ñëw moom it jël trente minutes loolee mbir la moo xam ne mbokk nit ñi rafetlu nañ di ko def waaye loolee dañ koo war a bàyyi ndax gisuñu ko woon mu nekk ci doxalin te xikma bañ tey sàkku nekku ca bu dee ña nga xam ne dañ ne seen xutba duñ ko firi loolee tamit dañ gis njumte la parce que imam bi taxaw ci kaw minbar ay waxam ni muy mën a porté keneen du ko mën a porté kon imam moo war a wax ak nit ñi lu ñu dégg amma bu dee jàkk yi nga xam ne imam bu ñëwee day wax ak nit ñi lu ñu dégg ay wolof la lay wax ñëpp dégg vraiment jarul ñu def un discours boo xam ne dafay jiitu loolu donte dañ koy si jumaay sunna yi waaye ñun loolu yàgg nañ ko wax daal ne dañ ko war a bàyyi falilahi alhamdu ñun duñ ko def fii bu dee ne ñaareel bi mi nga doon wax ci lan lan yaayu Moussa yaayu Moussa mbokk ban njëriñ la ñu amal ñun kay xam bi ñu xam Moussa rek kay doy na sëkk yaa ngi dégg ñi koy laaj yaayu Moussa yépp lu ci bari affaire yi njabar lañ ciy wax loolu te ne am nañu naan ñu ngi tuddoon ummu yukaabit waaye yukaabit ak Fatima ak Zeynab loolu amuñu benn njëriñ mbokk xam yaayu Moussa ak yaayu Muhammad alayhi salaam yaayu Ibrahim loolu amuluñu benn njëriñ li ñu amal njëriñ mooy Moussa alayhi salaam nekk suñu yonent comme ni yonent yeneen yi yàlla tudd ci alquran ñu war koo gëm topp ko wallahu subhanahu wa taala alam maa ngi maa ngi jublu ci gëm topp ko mooy toppug général doon topp toppug détaillé sunu yonent alayhi salatu wasalaam rek lañ koy toppee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw bismillah naam Israël mooy yonent yàlla Yankuba yonent yàlla Yankub lañ doon wax Israël yonent yàlla Yankuba moo jur Yuusufa alayhi salaam ci jamono bi Yuusufa nekkee buur ca Misra Égypte nekk fa premier ministre boo xam ne daanaka ma yoroon nguur ga ca la waxoon baayam Yankuba mu jóge Palestine ñëw dëkk ci Égypte bi muy ñëw mu indi fukki doom ak benn ak yuusufa muy fukki doom ak ñaar fukki doomi góor yooyu ak ñaar nag ñoo meññi la nga xam ne mooy bani israil ñu tudde leen doomi israil ay doomi yanquba loolu moo ko indi su ko defee nag yonent bi gën a mag ci yonent bani israil moom mooy yonent yàlla muusa doonte ni ñoom daawuda suleymaan ayuba yuusuf ñoom ñëpp ca la ñu bokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah dama waroon a sangu farata fàtte ko léegi nag mat na ñetti fan sama xel doog cee dem ku mel noonu day dem sangu ji farata fay julli yooyu mu war a julli yëpp fay julli yooyu mu war a julli yëpp maadaama julli ñetti fan la da ngay gis ne ay quinze fukki julli juróom la day fexe mu daal du koy fay amma bu doon te ne ne dafa nekk julli yoo xam ne yoo bari la loo xam ne dem na ba jege ay weer ak yooyu dafay jël un mois boo xam ne nii rek heure bu jullee fajar yéen a fay benn fajar bu jullee tisbaar yéen a fay benn tisbaar ba bàyyi ne jour yooyu jeex na mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa ala kulli xaal kon ñu mujjee ci mbokk bala rek bismillah naam ah waaw ñu koy tënkale dañ koy tëkkaleeg moom wala dafa méngoog masihi dajjal ala kulli xaal Moussa Saamiri fitna la bu yàlla indi woon jox ko xeetu Moussa amma masihi dajjal loolu moom yeneen ci bi alayhi salaam nee na bi yàlla bindee aadama boobaa bis penc di taxaw amul fitna bu gën a màgg fitna masihi dajjal te it daana wax ne bépp yonent bu ñëw moytuloo ne xeeteem fitna masihi dajjal ndax kawteef yi mi nar a àndal kon ñu xam ne loolu Moussa Saamiri fitna la woon masihi dajjal fitna la bu gën a màgg ci fitna yi doonte ne ni mooy fitna yi sunu xeet bi dana ñëw fi axiri zaman yàlla subhanahu wa taala nag mooy ko gën a xam almuhim ñun fekk kook ñàkk ko fekke yonent bi alayhi salaam lam ñuy jàngaloon kenn ci yéen bu mu julli lu dul mu ñaan yàlla musal ko ci masihi dajjal yàlla na yàlla musal ñu musal bépp jurit ci fitna yi masihi dajjal ak fitna yi bépp fitna buy am àdduna ak alaxira incha allah ñu bañ a fàtte sunu mbokk bi ñuy doon sàkkul ndimbal wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad